rajo fu ñu wéyee ndekk yéen ci wàllub xibaar ak nekkinu étudiant ya nekk ca université bu mbay nekkin boobu nag ah, taxu ko neex ndaxte étudiants yi daal ñu ngay jooytu daal anam gu gën ci seen wàllub nekkin di condition de vie yu gën foofe nga xamante ni moo di ca université ba ndaxte ñu nekk sax ca UFR santé ñoom daal jooytu nañu wàllub lekk ga ca restaurant yi ah, te nag étudiant yi tamit nee nañu daal repas yi dina ko palaa yi ñu leen fa jox daal gënalu leen neexu leen Papa Saer Mbaye ci ndimbalu Bekka Ndiaye. ñu ko nemmeekoo ci daanaka daara yu mag yi nga xam ñoo nekk ci biir réewum senegal ndongo yi nekk ci université Alioune Diop rawatina ñu nekk ci site bu Diourbel di jànkonteeg ay jafe-jafe ci seen wàllu ko dundin. ñam yi ñu leen di toggal ndongo yi di xam ne ni dara nekku ci anam yi nga xam noonu la ñu ko bëggee. man balaa may dee ñuy wax étudiants yi. lekk ñiy lekk fii duñ ko lekk seen kër pap ñun fii lekk ñu fi doy na waax de plus souvent lekk yi nekkuñu ci anam bu set. léegi la lekk bi de saf xorom wala lekk bi doo xam wala ñu tëbbal la loo xamee mooy loolu en fait kenn mënu ko mu xajam suuf temps gis ngeen poussière dëkk nu mel te pare suñu resto bi condition yi vraiment demee noonu j'interpelle sur ça coût bi wala ah, ñi nga xam ne ñoom ñooy gestu ci loolu ñu ñëw bu ñu wax affaire santé te ñu dëkk ci anam boo xam ne setul donc dina am benn genre contradiction reste bi moom melokaan bi day na waar dañu ne chaque jour palaat yi raxas bi du set togg bi baaxul ba gis ngeen ko keroog sa Dakar gars yi nuñ mujj def tuur yàpp yi tuur jën yi ti mujj di toj restaurant yi ndax lan parce que dañuy ñëw fekk yàpp yi nëpp fekk jën yu yàqu et je peux dire que même situation situation boobu noonu moom moo nekk fii nii duñu lekk lu baax lekk ba suur amul benn mu ne da ngay xëy chaque jour ñu toggal la ceebu yàpp nga xëy ñu toggal la ceebu yàpp nga xëy ñu subal teggal la ceebu jën ñu toggal la ceebu jën y a pas un na moom nga fa gis moom ngay lekk nga ñëw ceebu jën nga fa fekk moom ngay lekk mënoo kaas varié parce que dañu kaas varié soo ñëwee kaas ne nañu varié lekk bi nga gis ne lekk bi matul qualité moo la su lekk matul qualité mënul am amul qualité amul quantité parce que déjà du mat. étudiants yi nekk ci université Alioune Diop bu Bambey di sàkku ni mu amee ci diwaanu Ndakaaru ñu wutal leen seen centre des œuvres universitaires boo xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci seen i mbir ndax lii bokk na ci li ñu gis ne moom dong moo mën a saafara jafe-jafe lekk yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel